si si si question bi ni mel proposition bi nga xamante ne benn boo ko yaakaar bëgg nañu ko def pour président bañ a dissoudre de assemblée nationale Thierno waaw mooy li ma waxoon rek euh, sànq rek professeur je crois que si sens boobu la abondé gars dañuy politique rek <laughs> dañuy politique parce que xam nga entre ki ne euh, yëf yi li ñu waroon defee assemblée maa ngi koy yóbbu beneen béréb ah ak kii tamit ne xaw ma lan nu mu tuddati euh, waa benn bokk yaakaar ñu ne ñu dinañ fexe ba possible pouvoir de dissolution boobu noonu dañ mais benn la rek benn la quoi moi je crois que dañoo génn ci <laughs> ci cadre bu bu bu normal mais am na ku ñu fàtte ci wax ji yëpp la clé de voûte des institutions le président Bassirou Diomaye fay parce que lii man récréation la muy niru mais il doit siffler la fin de la récréation. comment en faisant quoi. voilà justement c'est politique léegi foofu daf lay delloo ci benn affaire parce que tey xam nga lan la ñuy souffrir ci dëkk bi tam bu ñu waxantee dëgg genre hiérarchie bi ñu am nii tey cet exécutif à deux têtes <laughs> entre Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dafay mel ni Ousmane Sonko marche sur les plates-bandes du du du du président de la République du du noonu ba dégg naa sax def naa léegi day xëccoo tàpp bi <laughs> ah wala. waaw image boobu ah. dañ koy ma waaw waaw mais moom moo ko wax nee na xaw ma kenn mënu ma ndox ci tàpp bi nu mu ko neexee kat. te tàpp bi dafa am borom nag. Uh-huh. mën la ci xajal tuuti rek mais dafa am borom. c' est borom moo ko ci xajal dégg waaw léegi nag foofu la problème bi amee nag. au regard de la constitution surtout ñun bi ñu am man d' accord ma ci boobu noonu ultra présidentialisme boobu. nga xam ne président de la république depuis Senghor. dafay mel ni Ndongo Ndiaye ko saraxul mu tibb ak dooleem loolu d' accord ma ci ah. bon après loolu dinañ ci ñëwaat sax xam ne parce que tey ñoom dégguma leen ñu wax ba tey affaire référendum dégguma leen ñu wax ko ba tey. Mm-hmm. parce que fii référendum ñu fi def yëpp c' est des mm-hmm. ay pièges la woon pour gën a conforter sax défaut yi nga gën ko kii doo renforcer défaut yi ñu fiy fekk nga gën ko exacerber. aussi bien ci Abdoulaye Wade présidentialisme boobu la renforcé waat Macky loolu la def moo tax ku ci nekk andiwaat nga polémique gu troisième mandat xam nga. Mhm. donc ñii dama leen xaar parce bul fàtte benn affaire dañoo souscrire ci assise nationale yi. d'accord assise la moo ci toppoon commission nationale de réforme des institutions bi Macky Sall la place qu'on lui a prêté mooy lu ko neex la ciy jël. Mhm. léegi rek ñoom li ko arrangé rek. comme dañ ko souscrire xaaral ñu leen arrangé li arrangé léegi donc fii mais tout compte fait moi je crois que faut pas qu'on faut la risée du reste du monde parce que lii ne affaire récréation la yëfu xale la du affaire bu am jëmm quoi moi je crois que xam nga waru am problème et que si c'est pas tard mhm. nañu toog rek quoi ñu waxtaan ci consensus mhm. Mhm. pourquoi pas ci consensus comme am na ay format yoo ne bu ñu ci jaaree kay réglé ko. le premier ministre ñëw. Uh-huh. def déclaration de politique générale mu jeex amul benn problème. merci beaucoup merci beaucoup Thierno mu des li ñu si desee maanaam waxtu maanaam bëri.